dëkki Afrique yu bari nag ñu ngi fi toog li waral toogaay bi nag ak lañu bëgg di leen rek mu di nag Afrique moom boppam ginnaaw mbasum Covid 19 ak xeex ba ca Ukraine ñu war a rek jaar ci ay moyens yu bari ngir rek suqali seen koom ci loolee nag ñu xalaat koom boo xam ni day nekk ci askan wi di leen jàppale ci lépp. avec plus de 22 millions d'Africains. at mu nekk ci xayma lu tolloog ñaar fukk ak ñaari million doomu Afrique ci ay ndaw ñu ngi wërub liggéey. loolu rek tax na ñu war a gën a bàyyi xel te suqali bu baax li nga xamante ni moo di jumtukaay yu xarala yi. résolution encourage notamment les institutions. dogal bu ni mel day tax ba ñi nga xam ni lëkkaloo nañu ak ñoom ci wàllum koppar ci bitim réew ak banque yi ngir ñu gën a gunge dëkk yi nga xam ni ñoo bokk suñu kuréel ngir ñu mën a am li ñu bëgg. des développement durable Afrique mënal boppam lépp mu di nag loo xam ne mën naa nekk waaye nag la cay gàllankoor bari lool. les possibilités. lu jëm ci liggéey di fayeeku weer wu ne. loolu doon na li nga xamante ni moom moo gën a jafe. ba tey ci Afrique téeméeri ndaw yoo jël juróom-ñeent fukki daanaka yeggale wuñu njàng ci daara yi suuf yi leneen nit ñëw nekk ay jafe-jafe mu di fexe ba am koppar ngir mën a door seen yëfu bopp ndax microfinance yaa ngi fi finance yaa ngi fi. suqali Afrique nag di rekk jaar ci ndaw ñi ak jigéen ñi mënal seen bopp. les jeunes et les femmes les couches ndaw ñi ak jigéen ñi ñoo gën a soxla njàppandal ci réew mi looloo tax sax ñu daal di taxawal DRFI ngir mu jóge leen jaaree ko ci lebal xaalis sax. économique des femmes et économie sociale et solidaire ngir suqali koom Afrique waaye tamit bu Sénégal ngir xeex tamit bedd bi ñuy bedd yenn dëkk yi waaye tamit comme boobee nag ngir rekk jàppale ak suqali jigéen ñi ak ndaw ñi.